kaaga mooy Ibou Ndiaye o oh, boleh ba léegi dara amagul Ibou Ndiaye jël na ko kaaga bañ na kaaga jël na tànk Ibou Ndiaye kaaga jël na tànk Ibou Ndiaye daanu Caaka Faye Ibou Ndiaye daan na Caaka Faye